subhanallahi walhamdulillah la ilaha illallah rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi ziar ñëpp gannaaw ba ñu sante yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp bëgg a wax tuuti ci Adja Ndeye Gane Rassoul li nu xam ci moom ci lu baax tabaarikàlla macha allah li nu xam ci moom mooy yoonu yàlla daal lan xam ci moom parce que loolu lay woote chaque année loolu lay woote chaque jour mi ngi ci loolu man nag li ma xam ci moom bari na parce que gannaaw yàlla ak yonent ba moom moo tax ma ziyaare ji Cheikh ma Tidiane kon kooku ku baax la mom moo organisé Cheikh na Ahmed Tidiane woo ma ba ma mu ne ma dama xam da nga bëgg ziaré ji Cheikh motax ma bëgg la bolé ci regroupement bi ziaré ji Cheikh ma ko loolu doy la luma neex la mu bolé ma ci dama tok rek genn rek ñew sama dom bi ne ma tanday gan ñew na ci nee nga defar pass sa passeport semaine bi da ngeen dem maro lolu dama koy santé bu baax ndax gannaaw yalla ci loxom la jaar te loolu ku mu jaar sa loxo nit ku baax nga ndaxte boo fekkee jullit yokk ci di taalibe Cheikh naa ma Tidiane nga ñëw bett ko ne ko damaa bëgg nga ziyaare ji Cheikh kooku ku baax la bu amoon màkka it noonu la may bette waaw tabaarikàlla macha allah loolu daal xam naa ko ci moom mu am yëg lool ci nit bëgg lu baax lool ci nit sunu euh, kii bi jàppoo azur bi moom mooy sunu kii fii moom mooy sunu maire fii si suñu côté bii waaye la bu lay woo sax day neex asalaamaaleykum wa rahmatullah la lay woo ci téléphone bi loolu bu la ko woowee même yow boo warul woon a cotiser ci sax da ngay cotiser ci ndax langage bu baax bu rafet bu neex macha allah loolu daal xam naa ko ci moom di ko ziar bu wér nag yaay euh, mobilisation bii nga def li nga ci bëgg yàlla na la ko yàlla defal dara jëy nabil Moustapha barke Khalifa Malick Sy ndax yow ku baax nga barki dem bi may tàntal Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam da doon dem Ndiassane mais da nga faa jaar ak sañse jox ma lu bari yéen ñëpp waa cité bi nag yàlla nañu yàlla ak yonent bi Seydina Mohamed fay yàlla nañu fay yàlla buñ ci kenn ëpple ñu yàgg koo tànt ci kattanu yàlla ak mbaaxam sama doom li duuf ci nag bi xajul si cin li waaye dama la bëgg a wax ne Adja Ndeye Guène Rassoul mi mention spéciale ci yoonu yoonu yoonu yoonu laa xam ci moom auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullah naa ba ma sante yàlla di julli ci sang-sang yi mu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñu fi teew ñëpp di sant ñu fi teew ñëpp di baalu ak ñi fi teew ñep ñew nak ci suñu rak suñu xarit suñu dal ma sha allah muy ndey gan rasul di nek nit ku bax nit ku am yek si nit nit ku am diine nit ku am sutura dañu dan tay buñ doon wax ci mom mën nañ fi yend mën nañ fi fanane te du jeex ndax am na yar am na teggin am na sutura am na diine rawatina diine bi sha allah ñun ñi fi tok ñëpp bu ñu xolé ñoko mag ci ay at mais ah, sa yu yëkëté ñew sa kër wala mu yëkë téléphone woo ñu lay jëme kanam ak ñu jëme kanam sa njabot ak lay boole ak sa borom subhanahu wa taala ci lay dugal ba tax na ñu ñëpp ñu tuddoo ba xaali guddi wala na lu suba huit naa la da nga amul fay du ñu koy ñaanal yëpp xale la de xale bu neex a àndal la te nee xale bu loxoom setee rek mu mën a bokk ay mag donc ñun ñëpp allah am na fa ay morom mais ñu ko mag ñoo fi ëpp te lépp ci moom la yaram ak tegginam te dañoo tollu jamono joo xamante ne fi mu toll nii nag léegi yàlla luñ jublu ak yonante sallallahu alaihi wasallam te ci lañu xirtal xirtal ñu xirtal bu ñu yépp ñu te wax lu ci wax aduna dara lul suñu diiné te mom mi ñay mo ci xirtal ñi koy ñaanal nak yalla nako yalla jappalé yalla nako yalla sutural yalla nako yalla fay tamit vraiment tay ji dama koy jël sama bop man day gan def ma def ko xuma sax comme mak yaay la ma def yaay la ma def te man nek na ni ko xamantene sama tank gis na lol lol lol waaye fu mu may yëkkati rek day mel ne yàlla dafay daf may oyofal ba ma ñëw ànd ak moom te tax dama xam ne li may ànd ak moom ak samay morom it ñun ñuy jëmee kanam rek mooy li wax rek ñun daal li ñu def daal ñaanal ko yàlla rek mi ngi ci lépp nag lépp lu baax lu baax lu mu am balaa mu naan yaraax gee ma juddoo wala fa ma yoroo wala fa ma màggee ma yóbbu ko fa caaree azur ji la koy njëkk a yéene ba pare macha allah yàlla di ko si jàppale loolu nag Ndiaye yàlla di ko si jàppale lool nag. ndax dañu toll jamono joo xamante ne ñun ñëpp tey fu mu toll suñu borom rek la ñu waxal suñu borom rek lañu kon boo gisee ku la ciy xiirtal doo def loolu téye ko ak sa fukk loxo juróom ko ñaanal yàlla subhanahu wa taala yal na ko yàlla taxaw yal na ko yàlla jàppale fépp fu bëgg a yegg si bu baax yal ko buur subhanahu wa taala gunge ba mu yegg si jaam ak salaam ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te asalaamaaleykum wa rahmatullah auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi sant yàlla bu wér di julli si sangu-sang yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam di gërëm yalla bu baax di sant Ndeye rasul Rasoul di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax Adja Ndeye Gane man Adja Diop de maa ngi lay gërëm bu baax a baax a baax baax di la sant nit ku baax nga nit ku sincère nga nit ku yëg nit nga nit ku bëgg yalla bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mënuma laa fay de man dama lay bàyyi ak suñu borom ñu am fay yalla fayal ma ndax li gën a ci nit mooy woo nit si yoonu yàlla woo nit si yoonu yonent bi man de danga maa yokk si lenn daanaa julli de daanaa woor jàpp daanaa def lu baax mais di euh, wirde salaatu faatiha chaque jour douze mille salaatu ala nabi gannaaw yàlla ak bi yow mi yaa tax ma koy def yow yaa ma wóor si cheikh bi gërëm naa la bu baax sant la bu baax salaatu ala bi bi may def dama say gis yokk bu rëy Bama ma ko def ba légui titatuma ci dara ragalatuma ci dara ndax yow mi gannaaw yalla yow la chaque jour dama da def 12000 légui dama koy yok ëpp na diko def 12000 dafa sama làmmiñ légui dafa dem ba tàmm ko ndax yow loolu nak maa ngi la si gërëm di la si di la ñaanal yalla li lo mën reen bu ne yalla nga mën lu ko ëpp ci li nga ñu wo ni yalla na yalla di la si di la si di la ba lu kawé sa jot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 ah ki ñu fi tax toog nag mooy Adja Ndéguène Rassoul moom def naa ne ku wax ci moom du jeex parce que Ndéguène Rassoul dafa nekk nit ku baax ku yaatal ñëpp Ndéguène mënu maa wax si yow moo tax gi dama koy gàttal parce que euh, loo am ci lu baax rek da nga ko yéene nit ñi Ndéguène saa yi la ooyee rek ci lu baax la lay oo ci dina la lay oo lislaam la oo mu nekk nag nit koo xamante ni dama ko yàgg xam nga bëgg rasulullah nag day bëgg yow bëgg yonent bëgg léegi bu demee ci tante bi ñu tàntal yonent bi sax lu mu fa am dina ko joxe ma dama koy xool rek dama koy xool ba sama yaram sax day daw ànd nañ fu nekk nag day dama lay jàng di la xool ba mu yàgg ma ne ndeygan ndeygan ma bëgg yonent bi waaye waaye nag dinañu fekk xam ne nit gënuñoo bëgg yonent bi gis nga salaatu ala nabi moo koy def dafa yàgg ay at moo koy def ay mil du bari bari bari bari mais léegi dama gën def léegi gën ko yokk nag gën ko yokk parce que xam naa ne njëriñ rek laa ci gis ci fii nag ak fële yàlla ya. na yéex kon ñu fi toog ñëpp maa ngi di gërëm di leen sant di ñaanal nit jàmm yàlla di ma am jàmm te ku mu jàmmal nga am jàmm yàlla ni yàlla defal jàmm ñu fekk lii nag ay at yu bëree bëri bëri dégg nga yaa baax mun ma wax ci yow dara lu sori sama xol dafay sori ci yow parce que xam naa ne yow baax fa mu commencé fu nga commencé dem ba jeex ku xam day gën rek xam na day gën dafa bëgg nit lu mu am lu baax wala nit nit di xëcc nit ñi te lu baax day gën yàlla nga am jàmm yàlla ma am jàmm te yor jàmm te ku mu am jàmmal nga am jàmm lay gën yàlla nga am jàmm sama wax dafa dafa sama xol dafa fees allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim أعوذ بالله ni الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw bi nga sante yàlla jub ci samedi samedi bi si doomu xam ne ali salatu salaam maa ngi nuyu ñëpp ñi fi teew ki nekk sa tur ak sa sant di nuyu di sargal Serigne Koné mi waral bis bi mu ñëw di sargal sama mak sama yaay Ndeye Gane ma ngi koy nuyu di ko gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla may ko yokk te ba mu yëg ko ci barke Sëriñ Mohamed yàlla na àndam beeg sama mag yi Ndeye Gane seen ànd yàgg lool yàlla bu ci yaakaaram tas benn yoon ci barke Sëriñ Mohamed alayhi salaatu wasalaam ndey ga nag mënuma wax ci moom mën naa wax ci moom ndax sama mag la sama yaay la moo ma yar njabootam lu mu nañu sama mag la sama yaay la sama complice la moo may dalal moo may defal suma ma jàqaree moo may defal suma ma sonnee moo may taxaw moo may wallu ci boor bu nekk yàlla taxawaayam yàgg yàlla ba gis dara lu mu ragal ci àddina yal yalla yàlla dolli ko lafal cet may ko gudd fan ak wér mu dund fekk léppay njabotam ak luñu bokk njabote ci ba gis na mo Muhammad alayhi salaatu salaam ñu nag sañu sañu sañu waajur ñu nampatal ci yoonu tarikha sene Cheikh sadu Abi muy sañu baye Cheikh Aliou jay sañu yaay dindi ci dara teg ñu ci lu tax ci julli jote ñëpp teg ñu ci yoonu julli ñu julli sañu baye julli dañu sant ba xëy làkku fu mu toll mu ngi ñu di leen julli bo ñëwee ci kër gi bay dem sax dalay wo ba nga ñeeku mu ne la jël julli nga ne ko papa den may damay julli mu ne la del julli damay bañ rek nga sagane ko kon nak yalla ñu yalla saxal ci diine joju ñu tek ñu teggu ci ba keroog ñuy sangu suuf yalla na yeex yalla may ñu yokkute tek ñu ci yoonu siraatal mustaqim ci ñu njabote ñu bokk njabote ak ñi fi tew ñep yalla yalla fay leen ñi fi tew yalla yalla fay leen yalla yalla barkel leen barkel lepp lu ñu am barkel yoonu bi ñu teggu ci yoonu siraatal mustaqim ñu ande sopp Seydina Mouhamed ba ci kanamam yomal xiyaam ci àjjana fii daw si yal nañ ko yàlla boole defal ñun ñëpp barki nabi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam sama mag yal na ko yàlla fay yàlla bi lii doon te mujj ko teral yal na yàgg taxawaay bi yàgg lool barki nabi Moustapha yàlla dëgëral taxawaay bi te yàggal ànd bi nan na seen ànd bi yàgg lool barki Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam alhamdulilah ndax ma sële la si na Muhammad wa yéen yi nga xam ni yéen euh, nekk ak Ndeye Gane ba tey ngeen ànd ci ànd bu rafet muy ci bànneex mu ci naqar cité bi nag nii rek la ndax jigéen yi nga xam ni ñoo fi toog tey te ñu bari ci cité bi seen ànd dafa nekk ànd xel ànd xalaat ànd ci bëggante moo tax ku ci xewle ñëppay jóg ndey sax ñii mu woo moo ñi ko gën a jege mais mënoon na fii mënoon na gën a fees waaye ni mu demee la ma leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di leen ñaanal lii nga xam ni ñu ngi ko nekkee depuis vingt-neuf ans yàlla may leen

mamam bu ñuy wax Mamadou Dia dentiste bu mag nekkon face am alal ju dul jeex fofu la dekkon yaayam joge Côte d'Ivoire ñew fi doon sey Côte d'Ivoire ñew fi ma ma ma xamé ko parce que ñoo dekk yarax momu dekk sañ ci man ma dekk jipp yag nañu nak yag nañu trop lu nekk jëm nañ ko Ah, waaw ma koy tak am na xamni xam gon nañ ko trop sha allah waye yalla def ni ah. <laughs> je me rappelle encore temps bobu j'étais très jeune dan yoré Honda XL 250 ñu diko am ci Dakar ci la bok ay 76 la ko amoon temps bobu mom mi ngi liggéeyee nek xalé bu nan dan ànd ak ci pharmacie de la nation ci Majmoud Diop temps boobu Majmoud Diop mo fa nek mom mu nek di pharmacie bi di len jappalé yaayam nekkon master chef mo yor woon cuisine so mo sa ñew ba dem ëllëg sa masbu job do koy daat waaye yow ki di fi ñew kan la mu ne ko diiw la mu ne ko lu mu koy lu muy liggéey mu ne ko enseignant la mu ne ko doo ko bàyyi ñoom dañoo ne <laughs> da ti keneen ñewal ma yobula fayal la Majmoud ñëwal ma yobula Euh, Saint-Michel fayal la nga jàng ba nga xam ni ëllëg doo soxla waa ji <laughs> mu ne ko déedéet billaahi wallahi taalaay am na ñeneen ay fondé de pouvoir raamal nañ ko biir néegam laa wax billaahi banque ñëw boobu elle n'avait que dix ci la ma ci laa ànd ak moom ba takk ko man ma nekk tiijaan moom mu nekk xaadir boo gisee fekk si wu ma daf ma ko ñaan dafa ne ma man dama bëgg a garder xaatir bi ma nekk ba ne ko amul benn problème parce que baayam moo daan naay mu sama pap euh, moo daan noddal sama pap ñoom seen jàkk mooy sanc mais jumaa ji sama baay moo fa nekk moom lañ fa suul moom mooy premier imam ratib bu yaraax ñu ko suul ci biir jumaa ji baayam daan nodd ajjuma ju nekk moo daan noddal bokkoon na ci ñett ñi nga xam ne ñoo daan noddal sama papa mais seen jàkk la daan nekk mais bu jumaa jotee ñoom ñëpp dañuy ñëw bàyyam nekk aussi ku ñu seexal ci xadriya moo tax ba ma ko ñaanee ma ne ko mais amul benn problème yow loolu laaj ma ma defal la ko <laughs> mais dafa baax ku baax la ku jullite la billaahi wallaahi taalaahi booy wër ku jullite jàppal mi ngi man xam naa ci dara parce que ñoo dëkk cinq heures du matin lay man moo ma yee rusuma ko du ma du ma ko rusa wax de parce que li am la parce que ëllëg man ak sama bàmmeel moom ak bàmmeelam billaahi laa wax cinq heures du matin lay jóg moo nan naan pëkk pëkk Ablaye heure julli jot na ta fek nako deja mom mu japp buy teud day japp la muy teud day japp julli day japp day fanaandoog japp buy genn day day yendoog jàpp man fàttalikuwuma fu mu fu mu fu mu julliwul non non heure jot julliwul non non da koy da koy jooytu quelque fois sax mu di ma non guerre bi moom est-ce que dama ko kii waaw duma ko paas ba si yàgg mu ne ma ay waa su ma dee ci guddi gi nag xaaral ma jóg julli ko ku gëm gëm ni bëgg diine ngi nii billaahi wallaahi taalaahi man de moomu ci man sama diggante yàlla mooy laay wax moomu ci man wér di dama koy fekk moom ak sama benen doom bi Arafat Baara ñuy wird du ko du ko raté wird xaadira ya. non saa yu ba pare dina wird ba ay 8 heures man bobu man pare na ba sama ngi ci sama journaux donc yalla moko bindé nonu moko bëggal mo moko tek nonu mu mel nonu motax man ni bis bi nga xamni mom la ko serigne ko ñëw pour sargal ko du du chance mérite la te moom ak sagar euh, kii ko sëriñ ko ne dañoo yàgg de du tey de Njaasaan ren dem na malgré que les malades dama taxaw fi ni ko mais looy dem nii mu ne ma non il faut ma dem non fan waaw Njaasaan ma ne ko non mais il faut il faut il faut te reposer mu ne ma non non il faut ma dem parce que foofu su ma demee sama dalu bopp laa yore sëriñ ko ne moo ñu yore man du sonn

oustaz bi sama kanam oustaz bi apprécié ni ko demal ci beneen saar àgg na ba ci foofu donc muy koo xam ni franchement euh, yàgg naa ko yàgg naa ko gërëm avant may dëkk si fii sama papa gërëm naa ko sama kanamu papa jour boobu je me rappelle bien Khalifa Sall bi nii ngeen dégg nii moo ñëw kër ga ñëw di ko may boutique parce qu'elle était la responsable des socialistes euh, troisième coordination ba euh, usine ben tali HLM Yaraax yooyu yëpp moom moo doon moo toppoon ci euh, baxaaw jong rek roko ay da jong Khalifa Sall ñëw di ko may boutique amul fu ko def sama baay jox ko boutique suñu ko dafa am boutique ñu fa dem xam gis nañu boutique moom mii ñu remplir ko ko may ko ko jour bi signé contrat bi de location bi man matok toog Khalifa Sall y avait Seydi adjoint au maire la aujourd'hui ci Barthélemy ak euh, waaw sama papa toog si ak mu ni euh, nday ngeen ngeen indil boutique bi maa ngi toog de mu ni waaw jabaru Ablaye mu ni waaw mu ni ah kii lii bett ma ci moom parce que xale bu yaru la bu effacé wu te bëgg ay mbokkam loolu man toog naa sama baay wax ko gërëm ko lii nga xam ne Khalifa Sall defal na ko méritam pour vous dire la personnalité du question sama jabar la moo tax may wax de damay wax parce que loolu mooy dëgg loolu moo am man nag dama koy ñaanal yàlla may ko encore ay fan yu bare boo mën a taxawu moom ak ñii nga xam ne ñoo ñi nga xam suñuy soxla nañu ñu mën ñu taxawu ba ca kanam ak kanam parce que ñu baax lañu ñu am diine ñu li ma wax nii moo nekk ci ñii ñëpp toog fi ñoom ñëpp diine la ñuy dox ci diine la ñuy doo leen dégg ci ay sabar doo leen ci ay organisé ay fuura la yu ma xamul déedéet ci diine la ñuy dox ñii ñëpp ku ci bari na ñoo xam ni tey yii boo leen waxoon tari leen fii yaasin ñu tari la ko ñu fii toog ci groupe bi ñoom ñëpp jàng ñii ñëpp ngay gis nii ñoom ci diine la ñuy dox moo tax bu leen day woowee wóoroon na ma ni <laughs> ñoom ñoo fiy jiitu parce que duñu dox ci ay foo

ñooy bokk néeg ñooy bokk lal waa ci teg sama bët ñooy bokk néeg ñooy bokk lal moo ba gën ñëwee dafa ne ma waaw ma ko non bi ci m'a bi sama la andi ko am nañu seen kër fële yaraax la ay rakam nekk fa ma xam xam ngeen ko moom mooy moom mooy rakam tamit day moom moo nekk ci kër gi ñoom dañoo jël seen wàll may ko seen rakk moom mii ak xadi ak bintu jël seen wàll ci kër gi may ko seen benn euh, seen seen càmmin seen rakk jooju benn boobu lañu am ñu may ko ko maire bi mënoon na dëkk foofu mais maire bi dafa ànd ak ñu ñëw xadi mii bu mu dékkee ni ndey <laughs> ngeen fii la dëkk dafa ñëw jege si ànd ak jëkkëram ñëw jëkk dëkk fii bintu fii la jëkk dëkk mooy grande sœur am ñew jégué ci ba tay ji mi ngi kërëm lepp ak mom parce que bu mu meloon neneen peut-être que ñi xadim yi du fi ñew bintu grande sœur am du fi ñew yaayam du fi ñew motax taxawayu yaayam dama koy rafetlu ci kër gi elle est très effacée elle est elle est lépp lay def man dama dem ba mu nekk sama yaay ci kër gi. que se viva e falar.